si table directeur général préavis de grève boobu date bi jàll depuis le 13 août dernier bu ñu neexoon tey jii ñu décrété mais suñu yitee du paralyser kër gi lu ñu bëgg mooy ñu régler suñuy problème bu fekkee ni nag réglé wuñu suñu problème te loolu laajuñ ko direction générale parce que direction générale wane na incompétence am conseil d'administration lañ koy laaj buñ ko réglé wul fii ak fukki fan danañ jël suñu responsabilité danañ décréter 72 heures te buñ ko décréter renouvelable lay doon te institution de microfinance de parce que SMT n'est ñëpp le bot. crédit mutuel Pamekas, dem ko Baobab dana ko top, ak ñeneen ak ñeneen camarade Sagna wax disposition pour tontu seen question je vous remercie. rek camarade wax Abdou waroon nañ responsabilité bu mat sëkk ndax nag yoon moo ne bala nga dem grève da ngay am préavis déjà da ngay am procès verbal non conciliation am nañu ko da ngay déposer préavis mu nekk weer déposé nañu ko mat na depuis le 2 août comme ils l'ont dit kon tey jii bu leen neexoon ñu arrêté ñu dem grève mais dañu ne pour jàmmal réew mi pour parce que système financier bi ñun xam nañ li mu ëmb xam nañ li muy def ci réew mi surtout ñi ñi néew doole kon xëy xëy arrêté ko jàpp nañu ne du responsabilité moo tax ñu ñu yuuxu tey joxaat ultimatum conseil d'administration bi pour que mu mu defee mu fexe ba fukki fan yii ñu jëm mu wut ci ay solution waaye du ñu jëm ci conseil bi parce que ministère bi nga xam ne moo leen jaboote ministère des finances